booy bi moo woyoon lii lii lii. lu dul yàlla neen na. garaabu kenn nenu ma. moomu loo ma sàkkuloo ma. doo ma teree mu ma yàlla doo ma naan ah dangaa ma booy bi woyoon lii booy bi waay kii nu mu tuddati waay booy bi dama fàtte tur bi. booy bi moo moom kii moo lay romb ngay wax ci moom naa ah, adder baa ngi noonu <laughs> ngay wax ci naa loxo

marqué sa empreinte ci réew mi ba bokk ci way xam nga loolu mooy tax fu ñu mënti dem ci àdduna buñ nee dëkk ba sa tur dem ca am na solo am na solo déggal maa ngay way pako eh P-Boy papa ay waay ay waay mama gi mbubb mi mën naa way de cëy te gi mbubb mi mën naa way de waa magay sekk waa ma gi mbubb mi kan la eew eh kii Mitaba ay eh, Mitaba Aysata Aysata Diallo ak kan am na kenn ku nekk ci kaw ku naan man man man yéen ñi naan man man man bu dee fonk bu dee kii amu leen confiance ci seen taar. bu leen man damaa ñàkk kersa de eh, nekkuma fii ci ay toog ni à la naan noo sekk eh, xol bu rafet ak ay imaan ak yooyu yëpp baax na de mais man dama bëgg taar de man il faut nga mool de mool dafa am solo li Pape Cheikh naan mool dafa am solo boo mool boo ma envoyé sa photo dama naan la yow moolo bi yée laa man nekkuma ci ay yëfi ay hypocrite ay di wane face bii fekk face bee la nekk ci man laa lay wan mooloo mooloo boo moolul mooloo ay utalal sa yaay kii say doom ay yaay joo xam ni loolu yëpp baax na balaa dara utalal sa bopp yow koo xam ni koo ko xoolee sa xol bi sedd utal sa soxna kii di utal say doom yaay yaay yaay ba fàtte sa bopp nga am koo xam ñoo bokk koñ dafa takk jabar takk ku ñaaw booy yi muy ànd ay baadoolo lañ moo tax gis nga may sa takk ko mool am na solo dëgg la takk ko am euh, xalaat bu rafet ku am xol bu rafet ku koo xam ni elle est généreuse ku mën a yooyu yëpp am na solo mais takk koo xam ni boo ko sa seytaane boo ko gisee sa bi seet loolu tamit am na solo mais xol bi na rafet na éducation ba rafet ak yooyu yëpp baax na mais ma ne lii tamit yàqu ko mu mool yàq ko laa wax xam nga sa soxna wutal ko ay kii say doom wutal leen seen yaay ju baax ak yooyu am na solo mais utal sa bopp yow tamit <laughs> soxna soo xam ne tarkal am na am na solo sa waa ku ñaaw la takk ku ñaaw bi mu takkee ku ñaaw maam moom booy yi muy àndal ay baadoolo lañ booy bi nga xamee ni kii dafa takk ku ñaaw maam ñoom dañuy jàppante ay kaañ bi nga xamee ni dafa kii dafa takk ñu dañoo jënd play PS5 loolu multimédia gi lañ dem jënd fa PS5 bu bees tàq yóbbu ca kër waaja jëndal ko écran plat bu mag eh, fii ca BMA ci ñoom Serigne Mboup mais BMA fi nekk fii fii lañ dem jënd fa écran plat bu mag yobul ko pour difa ñew ñëw par di match ci match ak du jeu pelay bu ñew rek li ko njëkk moy moy mooy mooy ana soxna ci mais c'est vrai di ñu bu soxna si bu ko nee fis ana soxna ci moy nord dafa genn lé quoi dafa da da dem créer mais soxna ci déggul day ne ci bir néeg bi naan série ma ngi ni mo kaay gën tok ñu retaan na kay kay kay wa ñoo ñu retaan na kay ndumbe xeyna ci fanani fanaani ci ci ca dawee dee ki dugg léegi mu ngi may laaj bala ngay laaj nit ñi ay polygame lañ wala ay monogame lañ nga wax sa boss ba pare man dé bi may wax damay tak ñaarel bobu yakara yakara dé non na de di damay tak ñaarel ma ngi xol dé duma gor man yow ki man duma gor bu ñul ay ay lo yow lo dal damay gedd di no def ma gedd fi dem ay fii yàq irasi bi <laughs> ragaluma dara damay tak ñaareel mani man déggatar ba naan Youssou way na Salimata kañ nga di gëj a dégg Youssou mu way Salimata dootu ko way de ci àdduna Youssou kay léegi Aïda rek Salimata <laughs> yéen ñiy xaar Youssou wayaat Salimata ci àdduna baya boo da ngeen ni eh, kii rêve loolu du ngeen ko réaliser de Youssou loolu lañ ko njëkkate rek Salimata booy musiciens yi léegi nga xam ne au lieu ñu ñëw waaye dañuy waxtaan. bokk wërsëg la ba mbaay mujjee génn. te ba wayal yow dañuy xaar ñooy waxtaan. ak moo mool sama jabar ji de. ma ne yu fi yambar yi xoolal. booy Grand Dakar ñaari tali. wuy ngaa ah, baax macha allah sama jabar. voilà man daal vraiment rëccuma li ma duggee ci yow. Ah,

goo xam ne yaay kilifa kër gi yaa moom kër gi yaa yilif kër gi du yow yaa war wax ndeysaan yow bu kër gi dee tàkk yaay sauvé di bu ñu fi dee sàcc wala ndeysaan moo ko wax déglu. ok euh, Maysa doo ma enquêtal euh, ndax yu Ndour dafa am biir këram studio doo ma laajtee loolu ah, parce que euh, li mu way ni ku reer la ba yor kaasu la wël parce que moo la ah, loolu mu ngi mu ngi kaasu la wël mais sax xam naa musique de kenn mënatuma ci am na fu muy waxee waa loolu mu ngee kaasu lawalam nii ba pare ku soos la soos xola xola xola yiin yiin yiin yiin yiin yiin mu yor kaasu loolu mooy génne lii déglu dafa déglu taamu mu ngee kaasu lawalam nii nga naan yuusu këram am na studio lii ku réeree soos euh, maanaam sa yii niin yii fii niin nga yor sa kaas lool ay yuusu bi muy yuuxul mu ngi xool kaasu lool bi maam loolu la bu ñu fuural bodde eh, kii ana bodde dooma laajteel lii ndax yuusu këram am na studio waaw naa musique fii fii fii ku réeree soos la soos fii am ay kii fii nga yor kaasu lawal lawal fuur ngay xool furiir bi moo tax nga yuuxu ni total dégg nga naan waaw <laughs> musique mënatuñ ma nax